ma élection indépendant tey ñu ngi am cent vingt six candidats ñun ñu ngi numéro quarante mm-hmm. yaakaar naa ñu ci bëri si ay citoyens lañu c'est des indépendants loolu xëy na nit ñaa ngi joytu naan candidats yi bëri na mais c'est parce que politiciens yi la ñu wóolatul mm-hmm. ndaxte actes yi ñuy posé dafa dem ba finalement population amatul benn confiance euh, ñun nag euh, vraiment euh, nekkul loo xam ne dañ koy lam-lamee parce que wax dëgg yàlla bu doon politique kese la kon xam na ne man du ma nekk candidat mhm. mais liggéey bi nga xamee ne ak suñuy nattango dañ ko liggéey soldu moom la ni nit ñi woowee ne na dañu bëgg loolu ngeen def soldu te mu marqué ñu am lu mu amélioré ci suñu dund ñu fexe ba mu doon méthode ëllëgu Sénégal ñu mën a changer yeneen secteur ah, li mu bëgg a wax mooy euh, on est à l'ère des grands ensembles ñi nga xam ne tey jii nii ils aspirent à diriger ce pays dañuy booloo ci ñu gis-gis nga xam ñoo bokk gis-gis euh, boo seetloo yow am na opposants yu bëri bëri yoo xam ne ils vous apprécient euh, pour ce que vous êtes parce que aussi xam nañ ne nekkoon nga ci régime boo xam ne li ci yàqu bëri na mais teewul yow sa am perdroo ko maanaam bu may jii nii foofu laay xalaatee en fait par rapport ak ànd bi pour ànd les les dignes fils du pays. pour liggéeyal Sénégal. waa loolu c'est pas à c'est pas exclu parce que ñun ñëpp dañu dañu bëgg Sénégal jag mm-hmm. euh, ñi nga xamee ne war nañu ànd ñu volonté te du am woor dinañu ànd parce que woor bi aussi dafa bari ci politique ça c'est vrai gis nañ ci vraiment façon pratique yoo xam ne vraiment da ngay da nga naan ndax ñii sax gëm nañ yàlla mm-hmm. ñun nag vraiment euh, ñooñu wax dëgg yàlla man dama leen di moytu parce que lépp loo xam ne politique politicienne la. Mhm. ma dama koy moytu parce que dama politique politicienne moo moo yàq Sénégal. Euh, rien n'est à exclure nous sommes en politique mais encore une fois nous sommes candidats à l'élection présidentielle du février ci coalition citoyenne ëllëgu Sénégal. Mhm. képp koo xam ne bëgg nga ci ànd ci. te li ngay def jóg na li ngay def méngoo nag li population bu bëgg. li ngay def dafa bokk ci jubante Sénégal tegaat ko fi nga xam ne foofu la war a doxee kooku mën na ñëw ñu ànd. Mhm. mais nag euh, bëgguñu politique politicienne. d'accord wala dugg tey dem dialogue geek pouvoir. Euh, dugg tey dem di wax ak ñeneen loolu vraiment dafay yàq ànd. Hmm. te loolu aussi vraiment euh, maa ngi koy waxaat. Ah. lu ñu moytu la. ñu ngoon ci forme bi maintenant dans le fond euh, par rapport ak tout ce qu'il y a à changer maanaam tey jii nii ce régime yaa ngi wax sànq gisoon nga ne fi ñu jëm baaxul ëllëgu Sénégal tey jii vos propositions pour un Sénégal meilleur bëggoon naa xam un peu parce que ci wàllum corruption ak yooyu je pense que am na loo ci def te du jafe ci yow xëy na boo bu ngeen falu woon ngeen ngeen ngeen mën ko teggi mais le Sénégal c'est pas sénégalais souffre ci wàllum économie wàllum koom gis nañu que ne dëkk bi metti na jafe-jafe yoo xam ne mi ngi fi souvent le régime ce qu'ils nous disent mooy y de eu des yu ko indi Covid bi bokk na ci guerre Ukraine Russie bokk na ci ndax loolu aussi lu ñu mën a jàppale moo tax situation dëkk bi metti nii rek ñu yem ci la. waaw c'est c'est gën na xóot loolu situation dëkk bi euh, même avant Covid bi dafa metti woon. c'est euh, lu tax parce que système économique bi ñu yor moo amul viabilité. maanaam si suñu wàllu koom-koom euh, fi ñu ko fi ñu joxoñ du foofu ndaxte koom-koomu Sénégal boo xoolee surtout ci wàllu option même PSE bi da nga koy gis mm-hmm. option yëpp euh, boo xoolee euh, wàllu infrastructure wàllu peut-être augmentation croissance économique mais secteurs yi nga xamee ne demain dañ leen war a prioriser war leen jiital ci choix économique choix budgétaire du secteur yooyu ñëwaat croissance bi tey croissance bi boo xoolee euh, ñi ko yor mooy euh, secteur secondaire ak service yi. Mm-hmm. mais croissance Sénégal lii tax sénégalais du ñuy yëkkati jafe-jafe lii tax seen dund daal di wàññeeku jafe-jafe yi daal di daal di daal di disparaître mooy ñu dooleel mbay bi bu dooleel napp bi euh, dooleel aussi sàmm bi. Mm-hmm. secteur yooyu 70 pour cent de sénégalais li ci ëpp ci doomu aadama ci Sénégal fa la ñu nekk. mais secteur yooyu mais ci wàllu budget boo xoolee li leen di jox mais taxul mu demee noonu tey balaa ñu ciy jox sax dañuy sonn. damay jël rek ci wàllu mbay bi parce que Sénégal la ñu dëkk. Mhm. te dañu dëkk dëkk boo xam ne aussi bay la ñu xam ak napp. Euh, boo jëlee ci wàllu semence yi tey ñu ngi naan programme national d'autosuffisance en riz mais pour nga am semence su ceeb bu baax sax mais dafa jafe. ndax da ngay gis ñoo xam ne dañ leen di jox semence yoo xam ne mais du qualité. Mhm. semence yi ñuy jaay ci marché la. te semence yooyu boo ko jiwee li nga war a am ji rendement doo ko am mhm. wala nga gis ay nit ñoo xam ne dañ leen di jox ay semence ay jiw te jiw yooyu leer na ne ñii duñ ko jëriñoo dañuy dem jaayaat ko ci marché bi mais lépp lépp lépp ci jiw bi d'abord la démarré mhm. dañu war a jël jiw bi mu nekk qualité ñu investir ci aménagement yi investir ci laboratoire investir aussi ci qualité semence mhm. qualité jiw bi ndax boo amee jiw bu baax mooy tax nga am vraiment rendement yu rëy moo tax aussi du soxlaate importation ndax boo jëlee wàllu importation 2023 ñu ngi prévoiroon 100 milliards pour couvrir euh, li nga xamee ne moo jëm ci wàllu euh, importation yi euh, ndir nga ci njëg yi bañ a bañ a yokk wàllu blé wàllu julin wàllu ceeb yooyu mais cent milliards yooyu mais fan la jëm cent milliards yooyu yaa ngi couvrir ay importation mais mun naa ne presque ñi ngay financé ñi ngi bitim réew te cent milliards yooyu bu ñu ko jëloon tey investir ko ci qualité semence. Mm-hmm. investir ko aussi ci machine investir ko aussi vraiment euh, ci wàllu engrais de qualité kon nit ñi dootuñu amati jafe-jafe béykat yi. Euh, maa ngi masaw bu bax baykat yi. Mm-hmm. parce que tey da ngay gis hectare bu nekk. boo amul machine mais yaa ngi fay vingt cinq mille trente mille am na sax ci wàllu euh, wàllu euh, côté bassin de la Nambé ñoo xam ne soixante quinze mille la ñuy fay hectare mais loolu am na fu mu xaj. Mhm. lu tax ndax amuñu machine. mais Sénégal agriculture bi dafa féete boor dañu war a àndi transparence lu leer ci wàllu euh, jiw bi. Mhm. ci wàllu machine yi ak ci wàllu engrais bi. agriculture benn point la si à côté y' a aussi euh, lu ci mel ne la pêche euh, à l' école on nous apprenait que les côtes sénégalaises sont poissonneuses tey jii nii gis nañu que ne nos pêcheurs s'aventurent même ci yeneen côté yoo xam ne li muy indil mooy musiba te loolu mooy les plus chanceux ñeneen ñi ils préfèrent juste prendre les pirogues et quitter ce pays. waaw loolu dinaa ci dinaa ci dellu si mais ma ngay rek ma ma jékkali ci wàllu agriculture. parce que dafa am solo. Euh, li nga xam ne moo jafe yi am ci ceeb bi. moo am aussi ci wàllu wàllu euh, dugub bi parce que dugub bi tey rendement yi dafa baissé. Mhm. yaa ngi jël euh, kilo dugub ñu ngi koy jaay cinq cent francs loolu dafa cher. kilo dugub moo gën a sax cher kilo ceeb. loolu du yoon. Euh, loolu li ko waral mooy li ñuy béyate ci ci ci dugub bareetul machines yi aussi jafe na ci ci ci béykat yi engrais yi jafe na aussi boo jëlee aussi ci wàllu wàllu mbokk bi même chose parce que mbokk bi ñuy utiliser tey. Euh, mënuñu amal rendement. Mm-hmm. te tey ci àdduna bi ni agriculture doxee dañu gis na variété métisse variété yoo xam ne vraiment seen rendement c'est ay minimum cinq tonnes. te variété yi nga xam ne moom la ñuy utiliser tey ay deux tonnes la et trois au Sénégal loolu moo tax Sénégal mënatul béy mbokk bu doy. mais si c'est différent des OGM OGM moom musiba la. déedéet du OGM euh, variété yoo xam ne la dañ ko travailler euh, en laboratoire ba nga xamee ne dafay am yenn performance yi. Mhm. mais du OGM. Euh, léegi Sénégal dafay importer mboq Mali la ñuy importer ak yeneen dëkk yi. mais loolu yaakaar naa du ndamu Sénégal. Mhm. Sénégal bu ñu xamoon vraiment daanul importer mboq. Sénégal bi ñuy xam aussi bi ñu bëgg. dafa war a bàyyi importe ceeb. ndax vallée de fleuve bi euh, bassin de la bi na Bignona euh, Tambacounda ak même Saloum euh, war nañ fa mën a am ceeb bu doy ceeb bu am qualité. ceeb boo xam ne nit ñi du ñu lam-laame ndax dafay andi feebaram déet te nit ñi war nañ ko mën a jëriñoo. li ñuy importer war nañ ko mën a delloo producteurs yi. Mm-hmm. ñu gis ci seen bopp seen am-am yokku. parce que boo nekkee population da ngay fexe am amam yokku bu am amam yokkee mais état bi da ciy bénéficier wu ndaxte wàllu impôt wàllu liggéeyukaay ndaw yi yëpp da koy créer parce que unité yi nga xam ne de transformation moom la ñu war a créer autour vraiment des des variétés de riz autour du maïs ak yooyu mais war na mën a créer ay xëy yu bare bare ci wàllu ndaw mais comment intéresser les jeunes à à l' parce que aussi Sénégal xëy na am nañu atu yu ma a mag suuf wàllum ndox wàllum soleil et mais euh, li li nga xam ne euh, eggaguñ ci te à chaque fois on a fait un objectif y a y a problème quelque part. waaw loolu yëpp problème vision parce que vision ci wàllum agriculture dafa am fu war a démarrer. Mhm. neewul rek ñii béy ñoom nga ko war a intéressé mais c'est depuis école. waaw au passage maa ngi nuyu te di masawu enseignant ndax tey la seen ubbi tey. Mhm. école depuis ci école wala la ñu war a fexe béy. mu dugg ci vraiment euh, xelu xale yi. gëm nga ne par l'agriculture on peut développer ce pays. et eh, oui bien sûr ci école déjà école école bu nekk war na mën a am espace agricole espace agricole boo xam ne xale yi dinañ fay béy wàllu produit maraîcher ñu tàmbal leen béy tàmbal leen effort. Mhm. tàmbal leen xamal ne aussi nit da nga war a vraiment di sonn ci béréb balaa ngay am. loolu mën nañ ko jëriñoo ndax cantine scolaire yi. espace agricole yooyu mun na koo alimenter mën noo ñu def ay grenier scolaire ci biir école yi ba nga xam ne du ñu soxla ndimbalu yeneen dëkk mhm. du ñu soxla ndimbalu programme alimentaire mondial mais déjà bu xale di di nekk école ñu koy andil produit yoo xam ne jegewu fi ay produits euh, alimentaires mondial ak yooyu. Mhm. mais loolu du tax xale bi am esprit de créativité. c'est vrai ñu des aussi da ngay jàngal xale moom mu xam ne effort liggéey. ba ngay xale la ba ba ngay doon mag. Mhm. loolu c'est très important. cycle boobu aussi dañ ko war a continuer. di financer aussi conseil agricole maanaam lépp luy xam-xam bi nga xamee ne day mën a permettre béykat bi muy am ay jëmtukaay yi dëgër. Euh, euh, rendement mi di yokku ni muy béyee di yokku aussi ni muy utiliser aussi semence yi di yokku mhm. conseil agricole Sénégal dañ ko fàtte ndax ANCAR yi li ñu leen di joxati vraiment doyul il faut ñu dooleel leen ñu financer aussi chercheurs yi parce que dëkk recherche innovation moo ko yoree innovation nag état da ko war a di financer mhm. mais boo xoolee vraiment secteur boobu dafa war a tumaranke secteur recherche euh, nekkoon naa conseil d' administration ISRA représente ministre finance finances pendant sept ans ak institut national de pédologie li ma wax dama ko xam euh, dafa nekk secteur yoo xam ne euh, recherche financement bi dañ ko dañ ko néewal doole donc il faut ñu yëkkati secteur il faut ñu may leen doole mhm. leen mayee doole béykat yi dinañ ci mën a gis